14.
ak soixante dix. fii nag vingt deux soixante dix. ndaw su bon sa su ñuy wax hindu xam ne fut batoo ko jur fut batoo futee batu ñoo bokk bay ab bool xabaleen jur indum fut batoo ko jur mooy yaayu Muawiya daal di jekk-jekk jigéen ñi mu àndaloon rek mu jox mu jox leen dënd yi tabala yi ñu tëdd rek daal di woy góor ñi loolu la fa doon liggéey benn jaamam bu ñu doon wax su mu ñu ko ñaar daal kenn ko ci rey rek naa la defal lu rëy reyal yonent bi wala nga rey am sat yàlla dawal mu fekk rek jam am sat ab jarbaatam bu ñu doon Abdullah ibnu Jaxsin ñoom ñëpp ñu nga tëdd wóor indi ndaa di xott ndaq ba génnee refe di ko lekk dara di sipp ci jëriñ yaa si moom mu rey am sata mu gën a tuub mu gën a tuub ba nekk jullit waa mu ne dund naa ci kéefër juróom benn fukki at dund ci diine juróom benn fukki at moom wax si waaw moo rey Abu Jahl nee na maa rey ci gën ci nit ñi maa rey ci yées ci nit ñi waaw moo rey musalimatul kasab moo wax ci loolu indil moo ko def am sata darga def sëwët fekk mu jaaxaan rek xol bi sedd naan ko yaa xam sa yaa xam sa nee na islamat waxtoo ittewoo taayifataani ñaari kuréel min kum tukke seen muy bannoo salamata ak bannoo aarif an tafsala ñu bëgg a ragal nag anil xitaal yi bàyyi fi xeex bi ndax taxam saytaane yàlla ni wallaahu bur yàlla wàlliyuhuma moo leen dimbali ñoom ñaar ba tax dayuñu wa fale tawakkalin na gëm moomi noona way gëm ñi àlalaay ci yàlla yàlla nee na loolu leen dal uhud naqari na dàq gañ leen dàq rey ci yéen juróom-ñaar fukk te yéen ngeen rey ci ñoom nit ak ñaar rek waaw ñoom yéefari ñu rey ci yéen juróom-ñaar fukk ngeen rey ci ñoom nit ak ñaar naqari na waaw wala xadu dëgg la fàttaliku leen nag yàlla da fàttaliku leen nasarakum yàlla dimbale woon na leen laaw bur yàlla bi badrin tab leen bakar teg fa nag ci diggante Makka ak Madina ab teen la woon boo xam ne bii ku ñaan badar badar moo ko moom badar ca teen tundub teen ba fa la ñu doon xeexe ñu tudde place ba badar waaye yi bind leetal nag bind badar nag ku tudd badar bind badar nag taara ko ñu ne ko badar maxarifa la jari la taara badar soxlawul lii fag la mu ne maamam sa nag badar maanaam sax badar dama koy taara waa ji def lii fag laam wala xat nasarakum laaw bi badarin wa antum ko yéen asiratun ngeen di tuuti ñett téeméer ak fukk ak ñett ñoom ñu mat junni fa taqwa ragal leen laa yàlla laa lakum kon yéen taskuroona ngeen sant is jooju nag muy saraf ci li nasarakum istaqoolu waxtu ba ngay waxee yow yonent lil mu'miniina ñeel way gëm ñi allan yakfiikum ndax doyul ndax doyul ndax doyul an yumidukum mu tëbb leen mu dolli leen li tax mu ni imdaad dolli lay firi boobu fekk na wàccee na alfun min al malaayikati murdafiina wax na ko ci saarul misaal junniy malaayika wàcc na mu ni ndax doyul mu dolli leen ci ñaar dolli leen rabbukum seen borom ñaari junni bu ko defee muy bi salaasati alaaf junni malayka wàccoon na muy mordafi na ñu dolli ci ñaar foofu nag da ngay mën a calcul muy bi salaasati alaaf benn buñ ko dollee ñaar muy ñett waaye wàccewul ñeneen ñett benn fi ne woon ñu wàccee ci ñaar ñu dolli ci ñaar tëbb li ngay xool minal malaayikati ci malaayika yi mun si dinañu wéy wàcc waaye jote duñu ndigalu xeex waaye ñoom ñëpp ñu ngi wàcc rek ràng yàllaay joxe commanda bi te joxe gu ko in tasbiroo bu ngeen muñee nag wa tattaxoo yàlla nee na danaa ca dolli ñaar bu ko defee muy juróom waaye dafa am sart in tasbiroo ci sart ngeen muñ muy benn wa tattaxoo ngeen ragal yàlla ñaar wa yaatoo comme yéefar yi ñëwal leen min fawarihim ci gaaw bu ngeen muñee ragal yàlla yéefar yi ñëw fi saasi ci gaaw yett yu baamee rek daañ ca dolli ñeneen ñaar dafay am sart ñu muñ ragal yàlla yéefar yi daal di préparé ñëw fa saasa yàlla ne asa ñaari junne ngi nii yum biddukum ñu di yoon dana ko dolli rabbukum seen borom ci ñett yi fi nekkoon bu ko defee muy di xam sa ci alaaf malaaka yi juróomi junni lañu dafa am ñu ko déggee nag benn ak ñett ak juróom muy juróom ñeenti junni déedéet imdaad bi waaw waaw kay imdaad bee ko firi aha ah ñu bari dañ di tarante di raqiq sama waajo de nag yamuy firi xilaasu saab ci ndim di ñëw tuddee boppam sondel waaw ladd al aqbatul ula wa baadu yadin wa baada sa jaawoo sintaani bil jalani mu ni Seydi Aji Maalik nee na waawun juróom benn gëdi Madina ñëw ca jamra du jëkk ba atum ñaareel ma ah yebbun ñëw nga boole waawun ak yebbun juróom benn ak fukk ak ñaar lii fukk ak juróom ñett man ko ah Seydi Aji Maalik dafa ardu sene de waawu nañu ci biir yebbun waawu na ñëw ci at mu jëkk bi atum ma ca topp juróom benn ñëw nga boole ko muy fukk ak ñaar ci déwén fi nag jaawoo sintaani bil jalani mu ni sañ bi foo dëkk man soo dellu soo bopp lii itam noonu la lii itam noonu la waawoon la dal axbati l ula wa baadu yabun wa baadaha jaawoo simtaani bil jalani nee na nag asa yum biddukum rabbukum bi xamsatin benn nag ñett benn nga dolli ca ñaar muy ñett nga dolli ca ñaar muy juróom bi xamsati alaaf muy juróomi junni min al malaykati ci malayka musawamina ba muy junni murdafiina la waxoon aha ba muy ñetti junni munsidiina la wax ba muy juróomi junni musawamiina la wax alxuraan li muy jàngale bari na murdafiina junni ba dafa am ñu topp ci ñoom waaw muy bëgg a ñëw munsidiina mooy ñi wàcc amaguñu ndigal musawamiina nag moo ñu yore mandargam xeex léegi nag sol nañu mandarga xeex yi nag jot nañu commandement bi nag seen ten sol nañu ten yi waaw ten yi ku ci nekk yaa ngi yor kaala boo xam ne bu ci baa ngay sëmbat solo ci sa gannaaw te daa ji mbaa ñu ne na jibril naaru góor wu ñuy wax ay soom la war yaa ay soom ak dimbil ma soom والهاديات دقا فالمغريات قطعا فالمغيرات سبا in tasbiru wa tattaqoo benn malaayka rek mën na leen a faagaagal waaye yàlla dafa bëgg seen xel dal rek ci mbooloo mi moo tax mu joxe mbooloo mi na benn rek ëppul ndax koo xam ne boo yuuxoo rek mu sotti yàlla nee na wa maa jaalahu defewu ma tëbb googu wa maa jaalahu xuja ma nga dellu ci imdaad ba defewu ko laahu buur yàlla ilaa busra waaye comme da yebal kenn rek tëbb gi mbooloo mi njëgal jëgal jëgal rek tax mu def ko làkkum ñoo leen ci limal wala tam may na agit ngir na saqloo bukum seen xol wa maa nasiru dem ndimbal foo ko mën a yaakaare du mën a am ilaa min indillahi ndere mi ngi jóge ci yàlla ay si kay aja not ak ñu kay aja atte dëgg li yaqtaa tarafan mutaalaqun bi nasrikum laqad nasarakum dimbali na leen lu tax mu dimbali leen li yàqta ngir na dagg ngir na alak tarafan ay cër dagg ay cër min lës ni si gaa ña nga xam ne kafaroo wedd nañu mu taalaqun bi nasrikum li yàqta laam gi foofu la aju foofu la wékku ji aw yàkk bi tahum wala mu këpp leen ci safara fa yan xallibo maanaam aw yàkk bi tahum mooy mu dàq leen mooy ak ndaxeel fa yan xalliboo ñu wëlbatiku xaay bii na ñuy way perte waradallahu lazina kafaroo bi xaysim lam yannaaloo xayran
këpp ci wolof moom arab la ar arab la këpp gaaña nag jekk-jekk nag ah ba leen yéefar yee songaatee nag am ñu daw nag istis doona wala tul woona daanu ko jot ci kanam yonent bi dara des fi moom lu dul fukk ak nàngam yépp daw nañu yonent bi nag ñu dóor koy dog ndeysaan xaañ ko xaañ kanam gi yow ma uhud yow ma uhud dañ koo xaañ yàlla ne jibril alayhi salaam xaañ nañu sama yonent bi deret jaa ngay wadd waaye genn toqantab deret ba waddee ci suuf suuf si yàqu dawal balaa genn deret ta wadd ah yonent nag sallallahu alayhi wa sallam nag mer kayfa yaslaw qawmun qadabu wajha nabiyim nakay texe ay nit ñoo xam ne ñu dañoo xaañ seen bu yonent ñun ñu xaañ seen bu yonent nan la ñuy amee àjjana ëllëg yàlla na ko eey laysa laka mina lamri shay'un yéefar yi nag booba rëy gi yonent bi rëy ci ñoom ñuy wax ci seeni xalaat ak ci seeni xel na xanaa yonent bi de mën naa ñaan yàlla xanaa ci darajaam ak ci diggam ak yàlla mën naa fexe ba nan defoon ca badar ñu def ko fukk ak ñeent rek ñu rëy ko ci nun ñu rëy ci ñoom juróom-ñaar fukk gannaaw noo dàqoon badar kay xanaa moom bu waxee boroom moom nu dàq ñu ngi koy wax yonent bi yonent bi ne ko ah lay sa làkk mi ne la bi sayin de maa yor dàqeel bi de maa ko yor de maa yor it àjjana lay sa sayin de dara làkk ñelle mi ne lamri ci mbir mi yowoo ci dara moomoo ci dara doo ci def dara mënoo ci dara yi sayin gi moom bu ko taara woon sax mu ci yaakaar as tur sayin ak a garaaw waaw yow tuuba ba ngay nangul tuub àlla yi ci ñoom ci lislaam wala ëllëg nga di leen dig sawara aw yooyu suba wala nga di leen bugal fay nun ne ko ñoom zaalimoon a tool nañu rek man la ñu tool tool nañu rek yow tool ñu la fay nun zaalimoon a ah mbir yi doy na waar ah tawit du ñor xom day lañu walillahi ñeen na yàlla maa ci samawaati li ci asamaan yow maa ci lala li ci suuf yi yaxfiru yàlla mooy jéggal li man yasaaw ku ko neex wa yoosiru mooy bëggal man yasaaw ku ko neex wallaahu bur yàlla xafuurun kuy sulaas jaamu la rek mu ko taqoo yërmande la yaa la si naamanoo yéen gaa ñu gëm ne yàlla am na laa taakulu bàyyi leen a lekk riba ndollantu lu ñaaw alaafa muy aj ful mu daafatun muy lu ñu ful benn booy fay si teg ci juróomi téeméer wala yaa ngi waroon a fay weer tegal naa la ci fukki fan ak juróom wala weer waaye da ngay yokk nag bor bi ribaal fagg la ribaal nasiya wa taqu ragal leen laa abur yàlla laa lakum kon yéen tufli woon a ngeen texe wa taqu ragal leen naara sawara la tuwa nga xam ne mu ngi def xaroos na ko lil kéefiri na ñeel yéefar yi waatoo topp leen laa yàlla wa rasuula ak yonent bi laa lakum kon yéen tur amoon na def ni yéenam ëllëg saarihum bi waawin wa duuniha nañu jàng wa saariho saariho daw leen jëkkante leen gaaw leen ilaa maxfiratin ci njëggal min rabbikum ko bàyyi ko ci seen borom wa jannatin ak ajjana arda joo xam ne ji yaataayam samaawaatu asamaan yi juróom-ñaar juróom-ñaari asamaan yi nga sëfte ko wala leb suuf yi juróom-ñaar nga sof ko ko yaatoon yaatoon yaatoon abba jaxlin ni gannaaw noonu la àjjana yaatoo de ah ila maxfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawaatu wal ardu sawara amu fa place kon ñëppay dem àjjana sidna ali ne ko bu bëccëg ñëwee ana palaasu guddi bu guddi ñëwee ana palaasu bëccëg bu bëccëg ñëwee daj fépp ana palaasu guddi nag bu guddi ñëwee daj fépp ana palaasu bëccëg mu ne ko loolu ci xam-xam yàlla la ci kattanam ba muy det préparé na ajjana lil muttaqina ñeel mbooleen ñi ragal yàlla ñi ragal yàlla mooy ñan lësina mooy ña nga xam ne yéen fexoona dañuy joxe ci taatilaay ci jaamu yàlla ci saraay ci seen waxtu kontante ci saraay ci waxtu naataange wa daraay ak waxtu jàkkoor ci saraay ci weer wu sori weer wu dee kon wa daraay ak weer wu sori ci saraay ci nawet bu woom wa daraay ak nawet bu woomul lépp dañuy joxe wal kaasimiina ñi won alxaysa mer ma wal kaasimiina xaysa bu ñu meree bu ñu meree du ñu fëyu du ñu fëyu dañuy daal di won mer ma dañuy daal di won mer ma benn sang nag muy Seynul Abidin benn jëdéeram jaamam bu jigéen muy jàpp mu tëyal ko wala kafteer la wala ndab la daal la am jàpp te sàqata ibriixu kafteer ba wadd ci kaw bopp Seynul Abidin mu doon jàpp kanam gi nag dagg mu xool ko bëti njéefo nag ndaw si ne ko wal kaasimiina xaysa mu ne ko kasamtu xaysi ndaw si ne ko ñee wan na seen mer mu ne ko wan naa sama mer mu ne ko wala xaay fii na ñi nga xam ni dañuy jéggal ku leen tooñ mu ne ko afaw tukki jéggal naa la mu ne ko wala yuribul muusi nii na mu ne ko anti furatul def naa la as gor jëfandikoo na laaya bi ñi nga xam ne dañuy wan na mer wala afee na ñuy jéggal nit ñi bu ñu leen tooñee it ñu jéggale wallaahu bur yàlla yuni bu sopp na moo si nii nañuy rafetal yàlla si ne ba tey noo ngi firi mu taq ne bi ñu waxoon isaa faaloon dem def nañu faayisatan ñaaw teef aw salamoo wala ñu tooñ anfusum seen bopp dañoo def ñaaw teef jaaloo wala yeneen wala ñu tooñ seen bopp li leen yàlla digal ñu lànk ko sàkkaroo ñu fàttaliku laaha atteb yàlla ca loola ca saxbaroo ñu wax astafirlaa ñu sàkkoo jéggulu li su noo doon ñeel seeni bàkkaar wa man yaxfiru déet di jéggale sunoo ba bàkkaar ya illallah ñëpp d'accord nañ ci xam ne yàlla jéggale bàkkaar ñëpp allahuma axfir lii la ñuy wax waaye ixfir li yow du ixfir li yow du déedéet xam nañ ni bàkkaar moom yàlla rek koy jéggale du déedéet ay bàkkaar ñëpp d'accord nañ ci yàllaa koy jéggale wa man yaxfiru sunuuba illa allah wala ñu firoo te nuuruñu allah ma faaloo ca lu bon lañ doon def ñaari baaraam ci ñaari bëti nit bindi woo sa ñaari baaraam te naan ko baal ma du mën a sotti jégglu maa tawbati dee ànd ak tuub waaye du ànd ak israar nuur ca bal dégg nga wala ñu si wàlla maa faaloo boobu te ñoom yàlla moo nañu xam ni ñi ngi nuur ci mooy ulayka ñooñu gaay jasaawum seen pay waxoon nañu saareo ilaa maxfiratin ba tey moom la ñuy wax jasaawum seen pay moo di maxfira maxfiratun min rabbihim bu tukkee ci seen borom wa jannatun ajjana tajri dina daw la naaru ndox mi min taataa ci suufi kër ya xaal dinañu woy sax fiha ci ajjana ja yàlla nee na wa niima baax na wa niima neex na ajru amilina yoolu way topp ni yàlla xad xalat yoon na sunna nun ay yoon min qablikum ca la leen jëkk taraayaxu fil kufaar ci yéefar yi yéefar yi kay yéen jullit ñi yàgg ngeen a gis li leen di dal nitu nuuxu ñi gis ngeen la leen daloon waa lóot gis ngeen la leen daloon na leen yàlla alake woon ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak waa xaat ya moo tax mu ne mooy sunna nun loola rek moo leen di dal fa siiroo dox leen fi ndar la ci suuf tam siiroo te ngeen xool kay fa kaana naka nekk aaxibatu mukasibina mujjub fenkat yi seet leen ko xaasa yàlla nee na xaasa ji alquran bayaan ak leeral la bayaanun leeral na li naa si ñeel nit ñi ñoom ñëpp woo dante dig jub woo moo isatun te dig waar lil muttaqina ñeel ñi nga xam ne ragal ñu yàlla yéen jullit ñi wala taxsanoo bu leen jàq la leen dal ca xóot bu leen naqarloo la leen dal ca xóot wa antum te yéen laxlaw na ah wala wala taxsanu lil muttaqina minhum waaw kay wala tayno wala tayno wala tayno bu leen lompañ yéen jullit ñi bu leen lompañ bu leen lompañ bu leen ñàkk jom di lompañ lompañ lu bu leen ko def wala tahinu wala tahsanu bu leen naqarlu it la leen dal te wut waxantum te yéen laxlaw na yéenay kawe ci ak mateer in kuntum ndem nekk yéen moomine ne di way gëm in yem taskum ndem laal na leen ndem laal na leen massa laal lay firi lamsu it laal lay firi waaye lamsu mooy laal gu ànd ak gu yëg li ngay laal massa nag mooy laal te li nga laal yëgoo ko moo tax mu ni ko saqaba lamsul marati du noonu la dafay yàq njàpp waaw lams day laal bu ànd ak yëg dana cee yëg bànneex waaye bu dee laal boo xam ne bii kat masa rek la dara farhum ndem laal na leen far um ndétte xarfun kon bu tombee ci suuf du farhun ndétte ba dee ca kaw nag xarfum muy jan-jan kontak na ko nag bi fat il xaafi wa damma xarfum wala xurfum xarfum jan-jan ndem dañ leen a jan ca wóot waaye yéen itam nag faxat masa laaloon na xarfum jan-jan xaw ma nit ñi ca badar mis loo cam nii leen nii leen jame ca uut noonu ngeen leen jame woon ca badar yéen badar rayoon ngeen juróom-ñaar fukk jàpp juróom-ñaar fukk yéen juróom-ñaar fukk rek la ñu rey ci yéen wa tilka yéen itam nag dogalu yàlla nag al ayaamu bis yi wa tilka al ayaamu yooyu bis nag ñu daawiluwaa dañ koy ayante nag ci nit ñi nag waxul baynal mu'minina bayna naasi la wax yàlla nee na sama dogal yi ñëpp ko bokk moo tax ñu ni alxilmu ak diine ñoom ñaar alxilmu ak diine na ñoom ñaar ndax teqalikoo nañu wala teqalikoo wuñu xam-xam ak diine waaw diine moom faw day ànd ak xam-xam ndaxte bu fekkee ne dangaa am ñaari nit kii gëm yàlla du jullit kii gëmul yàlla du jullit ñu dem ba ca tefes ga ñu sóobu ndox ma ki gëm yàlla jàngoon na feey ki ki yéefar bi yéefar bi jàngoon na feey jàng na feey ba am ci xam-xam waaye jullit bi moom jàngul feey xanaa ne jullit la rek yàlla dana ko musal ci doon jullitam mu dugg ca géej ga mu lab lab rek de moo tax yàlla nee na sama dogal yii ñu ma ko diglee ko ko defewul rek gis li nga war a gis wuyee wuyee jullit laa du tee li lay def li lay dal dal la aha wa tilka mooy wa tilka ayaamu nu daawiluhaa bayna naas wala yàlla ma ngir na xam laa bu yàlla la na xam ne la si na gaañ a nga xam ne amanoo gëm nañu ak ñi gëmul moo tax mu def ko moo tax mu def leen loolee ca xóot wala taxi sa mu soog a jàpp nag soo daaway seede min tum ci yéen jullit ñi soo xam ne fii nag mat na seede mu terale leen nag seede wallaahu bu dee la laa yu bu du sot saalimiina way tooñ muy yéefare wala yu muy sa ngir nag jeqe laaw bu yàlla jeqee mooy xàmmee lisi na ñu nga xam ne amanoo gëm nañ ak ña gëmul wayam ak mu alak kéefiri na yéefari am asituma am da ngeen a defe ni da ngeen a jot ni an tàdd xuroo da ngeen di tàdd jannat àjjana wala maa yàlla ne tax xàmmeewul laahu bur yàlla lisi na ñu nga xam ne jaaw doon nangu nañoo jiyaat min kum ci yéen wa yàlla ma mu xam saada yi na ñu nangoo muñ ci sadaa ibi ci ay tartar wala xadd dëgg la kuntum nekkoon ngeen tamanoona ngeen doon mirat dee dee ci jaat dee ci jaat dee ci jaat ngeen doon mirat almawta dee ci jaat min xabli an talxawhu la jëkk ba ngeen daataan dayeeg dee léegi nag dee ngoog nag faxatara ay tamahu yéen a ngi jàkkaarloog moom wantum yéen nag tam suroon na lu ngeen di wil wili nag bu xoole ah dee ngoog wa ma muhammadun sidina omar mi nga xam ne jàmbaar la woon dafa dafa dafa yor jaasi ne ku ñu yonent bi jóge ne fi maray la xel maa yàqu dafa bon xel ma dafa bon mu dof sidina Ali lafañ ndigg la mel na dafa dam fi ndigg mënu fee jóg ndax tiit Babacar jóge xaal ya ci soxnaam su fa nekk mu dem fekk fi ñu tëral yonent bi mu seen ne ko sa àdduna tey na sa àllaaxira tey na sàdduna tey na sa àllaaxira tey daal di génn xutba leen man kaana yacbudu llaha fa inna laa ayyun laa yamut wa man kaana yacbudu muhammadan fa inna muhammadan qad maata ku doon jaamu yàlla yàllaa ngi fi du fi jóg mukk ku doon jaamu Muhammad nag Muhammad dee na si naawar ne mel na ne laaya ji musuma koo jàng wa ma muhammadun déet muhammad ilaa rasulun nderek ndaw la ñu yónni la xad xaraj bi yónni rusulu ay ndaw min xabli yi la jëkk muhammad afa in naasa ndax ndem dee na deewub tabiha di dund ba mu yàgg mu dee te kenn reyu ko aw qutila wala reyees ko ci xeex xam nga dee feebar dee mooy deewub tabiha ñu rey la nag mooy deewu xatlu bokkul kii da ngaa dee kii dañ laa rey ruu bi nga xam ni tabax bi sa ruu ne woon daal màbb nañu tabax bi amatul fu mu dëkk mu génn mooy deewu xatlu ñu dóor la jaasi wala ñu dóor la kuur wala yu dañu noonu rey la in xaalat tubb loolu amee da ngeen di wëlbati ko ala xaajikum te seen tànk ya woon seen kostan ya woon dañ ca kéefër ga aqaba aqaba mooy fi moo di kostan seen kostan ya woon moom la nit di doxe moo tax borom fiq ba ne waylun lil axaabi mbugal gu ànd ak kaskare ñeel na ña raxasul kostan yooyee ña deneeru seen kostan yooye le kenn raxasu ko waylun lil axaabi ndem ña raxasul kostam ñoom la ñuy wax wéylun asanaan ña raxasul fenn wa man yen xaalib ko wëlbatinakum ndax yonent bi jóge na fi alaaxiba yi ca kostanam ya faram yàlla mënu wàññi laa bur yàlla sayan dara wa sa yeji feeqal sa naafay laa bur yàlla saakiri na way sant ñi wa ma kaana yellul nekkul li nafsin ñeel benn bakkan an tàmmata mu dee kenn du dee illaa bismillah ndere ci ndigalu yàlla nga dee dee nag kitaaban muy ab téere mu ajaleen buddi bu ñu date buddi bu ñu dig laay saxiroon na saata wala saq di manu waxtu yi bu fi kii yeggee dee du manqué minute minute bi ci topp mu ajal lan muy lu ñu waxtul lu man koo xam ne yurit na mun a sawaaba duniyaa yoolum adduna nuut yi daanaka jox mi na adduna kese wa man ko xam ne di yuri na mën a saabal axirati yoolum alaxira néeti nu jox ko min ha yoolub àllaaxira tegal ko ci bu àdduna gaañu tey bu ñuy waxaale ker gi waxaaleel seng bi rek ñu nekk fee waxaale nga waxaale seng bi ba jënd ko teggi foog seng yëpp ñàkk nañu ker bañ doon waxaale nit yàlla yi noonu lañu def dañoo daw rek wuti yàlla yàlla boole leen ci lu ñu bëgg ci àdduna dañoo daw rek wuti yàlla ni ko rek noonu xam nga suñuy soxla aha mi naa wasa naj waxal sa nanoo fay saakiri na way sant ña wa kaayin bari na min nabin yonent boo xam ne xutt la reyees na ko xutt la reyees na ngay wax rubbi yoona mbooloo mu bari mbooloo kasirin mu bari maawoo ànd ak yonent ba rey yonent ba ak mbooloo moom àndaloon fa maa waxaanoo bu leen ragal li ma asaabam ngir li leen dal fi sabilillah ci yoonu yàlla te ubut wa maa laabu bu leen lompañ wa maa sàkkoonoo bu leen torox lul yéefar yi bu leen ko def mukk wallaahu bur yàlla yuhibu bëgg na saabirina way muñ ñi wa maa kaana nekkul xawlahum illa an xaalu muy lisim ci xawlahum bi xabar ja nekkul seeni wax ñoom ñoom ñu nga xam ne saabirina lañ illa an xaaloon dara ña nga naan yaa rabbana yow borom sunu ixfir yàlla na nga jéggal la naa ñeel na sunu rabbana sunuy bakkaar wa israafana lu nu ëppal fi amri naa ci sunu mbir wa sabir yàlla na nga saxal aqdaamana sunu dëggu xol bil quwwati alal jihaad wansur yàlla na nga wansur naa yàlla na nga nu dimbali alal xaw mi ci nit ñi kéefiriin ñi di yéefar ci mujjub bàqara la waxoon wansur naa alal xaw mi kéefiriin fa ataahum jox na leen laaw bur yàlla saraaba dunya yàlla jox leen li ma doon wax mooy lii dañoo dem jàpp ci yàlla def def jëfi àllaaxira yàlla dolli leen ci àdduna mi ngi nii faa taawam jox na leen laaw bu yàlla sawaaba dunia wa usma sawaabil axirati ak rafetub yoolu àllaaxira yàlla jox na leen seen bi jox leen mbaa jox leen ker ñee nag ker lañ doon waxaale ker ga waa ji jënd seen bi ba yóbbu na ko wallaahu bur yàlla yuhibu bëgg na musinina way rafetal yaa la fi naa mënoo yéen ñi gëm yàlla am na in tuuti woon leen topp ngeen la fi ne ñi nga xam ne kafaroo dañoo weddi yeru dookum daañu leen delloo àllaa xaabikum ci seen kostan yi woon ilal kufri fan xaala boo kon da ngeen wëlbatiku xaasirina ngeen di perte bal allahu yàlla mawlaakum moo leen dimbali wootanu xayru naasirina moo di ngeen li woy ndimbal ni yàlla nee na sa nul xëy sànni nanu ruux ba ragal ga muy mafoolum law fi xuloobi la fi ne ci xolu ñi nga xam ne kafaroo dañoo weddi aha bima asrakoo ci lañu bokkaale sababu lañ doon bokkaale moo tax ma sànni ragal ko ci seeni xol ñu doon bokkaale maa loo xam lam yu nisul wàcce lu sultaanan aw lay bii ci lañ doon bokkaale wa maa bayum seen safaay naaru mooy sawara wa bii sa bon na maswaa zaalimina saxwaayu way weddi ña wala xadd wala dëgg la xad sadaxakum dëggal na leen laa wuri yàlla waxdahu yàlla lam leen waxoon def na ko iyaakum bi nasri lam leen waxoon daal leen ndimbal def na ko istawsoonahum waxtu ba ngeen xeexee gis nii ci ndigalam biraadati ci manneelu yàlla hatta izaa fasiltum ba ngeen ragal anil qitaali bañ a xeexati wa tanaasatum fi leen yonent bi ne taxaw leen fa ngeen bañ faa taxaw ngeen xëccoo fi lamri nag ca mbir ma ngeen xëccoo mbir ma mooy ndigal moo leen ko teg waasaytum ngeen mooy ndigalu yonent bi taxaw leen fii ngeen bañ faa taxaw min baadi maa gannaaw ba nga xam ne araakum won na leen maa la nga xam ne tey doon a bëgg ngeen ko ci ndimbal ndimbal la defal leen ko ba pare ngeen bañ a taxaw ba ngeen taxaw woon moo tax gaa yi doxe leen gannaaw waaye yàlla kat moom yàlla kat moom wala xad sadaqakum laahu wa'dahu daaloon na leen ndimbal def na ko ba rey ngeen ci ñoom ñaar bu ko ñoom ñaar bu ko ñaar ñoom sero rëy ñu ci yéen kenn ngeen dem nag di xëccoo alal bañu rëy ci yéen juróom ñaar fukk kon nag bu leen ko jéem yàlla yéen a ko def wala xad sadaxakum laa wax na ko yàlla moom la mu waxoon def na ko moom istawsoonahum bi ismihi hatta izaa fasiltum nag wa tanaasatum fi lamri wa asaytum ngeen mooy ndigalu yàlla yonent ñun daal di ma gannaaw ba nga xam ne araku woon na leen naa tey bon li ngeen bëgg muy ndimbal gañe ngeen ba nekk ñu dellu gañe leen min kum tukkee na ci yéen man goo xam ne yuridu dafay nam dunya àdduna wa min kum tukkee na ci yéen man goo xam ne yuridu dafa bëgg laaxirata àlaaxira looloo leen ko yóbbee min kum wa min kum min kum wa min kum suma topp sarabakum mu soppi leen ak mu warif leen yàlla nag suma sarafakum ak sum ala jawaab mu soppi leen nag musiba ma ak mu warif leen ay alkufaaru suma sarafakum anhum suma sarafakum anhum ndaa daa mujj yéefar ya dàq ay alkufaaru léegi taleeku ngir mu natt leen mbir ma nag changé na nag ah dàqoon ngeen da waaye mbir ma changé na ngir mu natt leen wala xat dëgg la afaa jéggal na ankum ci yéen lu mu leen jéggal istis si doona yàlla jéggal na leen nag ankum waruf leen wala bur yàlla soo fadlin borom ngëneel la alal moomini ne ci way gëm ñe lu mu leen jéggal istis si doona waxtu wa ngeen yéegee ca tund wa montagne ba gaa ñaa ngay dem istis si doona yéen a ngay jog gi di dem istushiduuna walaa talwuuna kenn geesuwul kenn walaa talwuuna ala ahadin geesuwu leen ala ahadin kenn gaañaa ngay dem wa rasulu mbir moom yonente ba yadduukum ma nga leen di woo fii xurikum ke seen gannaaw illa ya ibadallah gaañuy dem rek loolu nag faasaabakum jot na leen xam man naqaru dàq bi ñu leen dàq bi xamin ànd ak naqaru ah mooy ndigal gi ngeen mooy ndigalu yonent bi maanaa xaman dàq bi ñu leen dàq bi xamin ci sababu naqaru gi ngeen mooy ndigalu yonent bi moo tax ñu dàq leen muy ñaari naqar mooy xaman bi xamin li kay laa taasanoo ngir bu ngeen jàqatil allah ma faabakum ci la leen raw te koom ma wala ma asabakum bi jeegee ni ngeen jàq ci la leen dal ci ak rey ak ñu dàq leen wala wur yàlla xabirun xam ne yëpp soloo na yëpp dima tàmbaloon na ci li ngeen di def gannaaw loolu suma gannaaw loolu nag suma topp am sala wàccee ah amanatan ak mucc aleykum ci yéen min baadir xam ne gannaaw naqara noo asan gaañe mucc nag ba seeni xarit dal dañu gëmmeentu noo asan ngëmmeentu muy badal yax saa ragal na taayifatun ak kuréel minkum ci yéen te mooy julit ña yax saa muur na ngay wax kon yax saa muur na taayifatun ak kuréel ak kuréel minkum ci yéen julit ñi wa taayifatun ak kuréel ñoom kuréelu julit ñoom seen xel dal na ba ña ngay nelaw waaye kuréelu yéefaree moom xad ahamat ak naafiqe itteel na leen anfusum lu lu leen di rawal lu leen di rawal luy rawale seeni bakkan moom rek leen itteel waaye leneen itteelu leen xadda amatal anfusum yesu noona ña ngay jort bi laay ci yàlla xayral àq njort loo xam ne du dëgg sànnal jaayi léegi mooy njortal réer réer ñi mooy benn waaye yuuxun inna mo qad qutila muhammad muhammad rey nañ ko njort loolu moom la ñu jort ñu ngi koy dëggal te loolu du dëgg fekk seytaane yi yuuxu ci biir xeex bi ne rey nañu muhammad rey nañu Muhammad rey nañu diw rey nañu diw rey nañu diw yaqooloo na ñuy wax xallanaa déet xallanaa déet di ñeel nu mi ne lamri ci ndimbal ñun daal amuñu dara ci ndimbal comme ni ko yonent bi waxee woon daal gis ñu ko déet di ñeel nu mi ne lamri ci ndimbal min sayin dara amuñu fii benn ndimbal dara amuñu fi benn ndimbal hal lanaa min sayin xaala wax yonent bi lahum ñeel leen ina lamra ndigal la ina lamra ndimbal la kulloo yëpp de lillaay ñeel na yàlla ndimbal de man yoruma ko yàllaa ko yor waaw lu ngeen ñaxtu ñaxtu sama wet ak lu ngeen wax wax wax de man yoruma ndimbal léegi daal moom ngi fi metti na rek moom ngaa ko gis ak jaay ak jaay yow foo nga ñu nëbb seen bésum ci seen bopp maa loo xam laay doona duñ ko feeñal làkk ñe la yonent yàqooloo na ñu ngay wax te seeni xol seeni xol lañ ko wax yàqooloo na ñu nga naan loo kaana doonte nekkoon na ñu ne lamri ci mbir mi sëyum dara buñ ci amoon dara ci ndimbal law kaana donte nekkoon na lanaa ñenn sëyum dara mi ne lamri ci ndimbal mbirum ndimbal kon sax naa xutul naa du nu xeex xaaxu naa fii kon duñ fi xeex bañ duñ fi rey xul waxal ne kon duñu ñëw ba fii nu di fi dee law kuntum donte nekkoon ngeen fi buyootikum ci seen i néeg la balase dana génn dee alxatlu deega la fi ne gaañu nga xam ne kutiba farataalis na alxatlu dee àllañ ci ñoom dee dana génn ilaa madaa jén ci fa ñu tëdd seen canapé la leen dee di fekk waaw wala tali ngir na natt laaw bur yàlla na feeñal ko solo la laaw bur yàlla maa la nga xam ne bi su dóori ko ñu ngi seen xol yi yàlla xam ko wone ko wala yom na si am na jeqee maa bi xuloo bi ko mu ngi seen xol wala laaw bur yàlla àllimum xam na bi saati su dóori ci misaalum loolu benn waaye dafa dafa ñëw Souleymane dem fa Souleymane malakul mawti nag ñëw fa ñu ko waaja dee nga fa Souleymane waa ji toog ci Souleymane daal mu ne ko kii daal xooleen beeg man ëpp na damaa bëgg nga digal ma ngelaw li mu yóbbu ma feneen bu gën a sori Inde wala feneen daal am ngelaw li yóbbu ko mu dem fekk fa malakul mawti mun mun dañ may digaloon mun nga dee sabru fii ci Inde te mu ñëw fekk la foofu nga toogoon loolu mooy fat nag loolu moo dal gaay wala yu may seen maa jox bi kum wala àllim bi sat ina la si ne nit gaa ñoo xam ne tawalaw ah wane nañu gannaaw min kum ci yéen bañ a xeex keroog yow ma tàqal danaa ne bis bu ñaare mbooloo ya dajee mooy jullit yi ak yéefare ci Uhud ñu daw lànk ba fukk ak ñaar dong des ak yonent innama stasalahum ka waral loolu innama stasalahum ka waral loolu seytaano seytaane moo jax-jaxal seeni xol bi daali naa leen la nga xam ne kasa boobu fàggu nañ ko anil xuluf wala xat dëgg la afa jéggal na laaw bu dee la anhum jéggalati na leen anhum may leen jàmm ina laa ni ko wee la xafoon ku sural jaamam la alimun ku dën niirlu la yàlla si naa mën a yéen gaañu gëm ni yàlla am na laa takkoonoo bu leen nekk que la si ne ni ki gaaña nga xam ne kafaroo dañoo wedd muy naafiq waxaalool ñu naan li ixwaanim ñeer seen mbokk isaa daraboo ndem saafaroo ndem tukki nañu isaa daraboo ndem tukki nañu fi lar la ci suuf ñu ngi wax seen mbokk ya tukki aw kaanoo wala ñu nekk xusan di way xeex jamu xaasim seen bokk yooyu wayaase ak seen bokk yooyu xeexi ñu naan leen toog leen law kaanoon doon te nekkoon ngeen indanaa fi nun maa maatoo du ngeen dee wa maa xuttuloo dee su leen rey bu leen wax loolu léegi yàlla ngir na def laaw bu yàlla saali ko wax jooji asratan ak tar di xulloo dañ ci seeni xol wallaahu buur yàlla yuhyi dana dundal wa yumiitu dana rey wallaahu buur yàlla mooy dundal mooy rey wallaahu buur yàlla basirun gis na dinaa tax maloo na ci li ngeen di def wala in qutitum giñ naa ne ndem xeex ngeen ndem xeex ngeen fi sabilillahi ci yoonu buur yàlla aw muttum wala in qutitum kon giñ naa ne ndem reyees na leen mooy xatlu ndem reyees na leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla aw muttum wala ngeen dee ci yoonu ci yoonu yàlla da ngeen a xeex ci yoonu yàlla aw muttum wala ngeen dee ci yoonu yàlla wallahi moos la maxfiratum ak njéggal goo xam ne gi minallaahi mi nga bàyyi ko ci yàlla ñu jéggal leen seeni bakkaar wa rahmatun ak yërmande yoo xam ne gi ma nga bàyyi ko ci yàlla xayrul moo gën ñu naa yi noona programme yi ngeen di booloo ci biir dëkk bi ba bañ a xeexi wala in mutum giñ naa ne ndem dee ngeen aw xutultum wala reyees leen da ngeen a dee ci xatlu wala ngeen dee deew mawt la tunsaru na des na fong leen ilallaahi jëm ci yàlla laa ilaa xayri ci yàlla rek ngeen jëm bu ngeen dee ci yàlla ngeen jëm jëmu leen feneen ci àllaaxira fa min araamatin ni ci yërmande minallaahi ci yàlla ji la yërmande ji la yàlla defal linta ngan mooyale loo ñeel leen xulloo boom seeni xol walaw kunte doonte nekkoon nga fasan di ko xiis di ko ñaaw jikko xali sal xal bi di di ko gédd ku talub xol lan sàlloo kon ba tey tàqalikoo nañu tas nañu dem nañu seen yoon min awlika bàyyi ko sa jotaay bàyyi ko sa kéew wër gi nga wër sax bu jéggalal an mu wërlu wërlu leen wastaxfir sàkku la jéggalu sax bu jàmmalal an mu wërlu leen wastaxfir sàkku la jéggalu lahum ñeel leen ci yàlla wasaaru na ngay diisal ñoom nag ci lamri ci mbirum xeex bu xeex ñëwee na ngay diisal ñoom waaye nag sa tawak waaye nag boo boo boo boo boo boo wakkiloo nag wakkirlu nga isa atam tan dem wakkirlu nga nag allah waay ci yàlla nag boo wakkirloo nag fa tawakkal wakkirlu allah waay ci yàlla nag boo dogoo nag ma sama boo dogoo nag ina isa atam tan dem dogu nga nag fa tawakkal wakkirlu nag allah waay ci yàlla wallaahu bur yàlla yu ñu di sopp na mu tawakkilina wakkirlu ci yàlla ñu wéeru ci yàlla in yansurkum ndem sàkku ngeen a ndàkk ngeen ndimbal ndem dimbali na leen kon